mbokk téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak kontante yi di àddu ngeen di teewlu ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy arène nationale tey di samedi le 27 juillet 2019 Fallou Ndiaye woo ñu fi mu daal di tëgg gala bu ama am solo grand combat bi war a dem ci diggante Tyson numéro 2 ak Gora Sock xam nga ne ñu ngi fi xaar ki nga xamante ne moom mooy Franc ak Nguer bu Zap ak yeneen combat waaye mbokk yi topp leen ma ma dem xool comme mbër yi nan la ñu ñëwee lan la ñu wax. mais champion yow lamb ji yow dafa mel ni yow relax nga ci demee de. non relaxé waaw. ndax la non aw ma dama amul pression rek ci làmba ji affaire yooyu. da nga waa ji ngay bëreel wala. non non yaaw jaal sax bu ma doon bëree moom du ma ko xeeb. Hmm. waaw. Gora Seck nekk ci yoon dont ne jiitu nga ko ci làmb mu nekk ci yoon bëgg a franchir benn palier te nee na pour mu pour mu franchir ko il faut mu daan la alors ndax conscient nga ci loolu. non gëw ma loolu sax li mu wax man gëw ma ko. Ah. waaw man gëw ma ko man man daan laa àndaale ba soobee yàlla gëm naa ne yàlla dina Tyson 2 gars yi ne da nga fas yéene xeex ak waa képp ku la xam da ngay indi seytaane say adversaire mu nekk luur boo xamante ne est-ce que boo tàkkee ci kaw wóor na. lu mu laaj rek combat lu bu laajee tàkk dinañ tàkk bu laajee dal dinañ dal lu mu laaj rek bu soobee yàlla dañu ko def. doo calculer dara ci Tyson ci ci Gora Sock. aw ma lu ma si calcul aw de. gisu moo ko de. doo ko calculer. boo calculer de. concentration maa ngi la gis yaa ngi concentré waaw bis moo laajoon rek. waaw bis moo ko laaj. sa parcelle tâche nga bi la wala. non loole Tyson 2 moo fi indi tey. ma gis confiance bu doy waar ci yow. ngay bëree ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 nga def signature contrat ne da nga koy duma est-ce que mbër bu toll ni moom bëgg a xeex ak moom kur ko kur wóor na. xëy na léegi yoo seetaanal yaa ngi yor sa caméra vingt jot incha seetaanal. doo sinon sa doomu nday war a bëre suba muy combat bu ñor parcelle muy sa bos muy bos gars yi mu ñor parcelle loolu alors lan nga wax. Euh? yëpp incha allah ndam. yëpp ndam waaw. noo waajalee. ak samay mbokk maa ngi nii. Mhm. ak sa parcelle taille nga bi tàng na de. ak sa taille si bi tàng na laa. non 3-0 la. 3-0 la jeex na. incha allah mais mais mais ngay bëre koo xamante ne jiitu na la ci làmb lu bëri. mais ma gis la dafa mel ni yow da nga yàkkamti combat bi arbitre sifflé nga faxas ko mu dem est que du erreur. yàkkamti ko man nii laa mel. su ma duggee ci làmb ni laay def yàqamtu ma. oui mais xam nga ne combat bi da nga a a jël sa temps ko. waaw nañu nañ si kanam rek yàggatul. yàlla rek moo des. day ñaan incha allahu taala li ma la waxoon kit keroog rek. yàlla suturaal ñu bàyyi ko ak ay cëram mu duma Feu Rouge du muy metti. mais Feu Rouge. moog ñoo war a bëri. mais du moog doomu daal. champion maa ngi siyaar. bëgg nañ waa Equivox yëpp ñu ngi leen di siyaar. waaw maa ngi laajte léegi sa waay limousine combat bi alors noo leen ko waajalee ni ñu naan waajee combat amul dara lu ñu changé dañ yokk lépp rek. waaw na gën a métti rek. xeeboo sa waay. mu bu ma duggee dina xam ne xeebu ma ko. Euh. su ma waree jël sama temps damay jël sama temps. boo waree jël sa temps da ngay jël. lépp lu war a am rek maa koy def incha allah. Cheikh Super Diamono Bébé Bismi Cheikh Super Diamono Bébé Bismi mais Mama Lamine jël ngeen ko Mama xale bi tarkindaa la. xeexee. tase nañu Bébé Bismi se Super Jamono mu ngi koy jéem a lalli Super Jamono Bébé Bismi mu ngi door ay uppercut ci suuf moom Bébé Bismi. ku yaa ngi dal de. ku yaa ngi dal. ah jël na waaye cër yeeg jot. waaye xam naa safam ñoo ne ko xeexal ak moom parce que yaa ko sut ci ay cër. oho mooy avantage am kii bëre door na ko. dooraat na ko. day métti day métti day métti. Bébé Bismi mu ngi koy ñamaat. waaye dëgg yàlla nag combat bi du combat ci victoire nga. dina ko la illa ah oui combat bi na. du yomb ñu ngi c'est super jamono Bébé Bismi c'est super jamono am na li mu bëggoon jàpp na jàpp na ñu ngi koy door uppercut ah way du yomb c'est super jamono Bébé Bismi Franc Nguer arbitre na ñu ngi demee wet Franc Nguer combat bi dafa nar a gaaw Franc mu ngi koy ërtal Franc Nguer ah doorante nañu day jël na tànk ko wël ko nomba buddi ko daan ko laa ilaaha illallah doole doxul jàmm doole doxul jàmm eh, <laughs> doole xeeñ waa ah, kii kii doxu jàmm ci réew mi moo bitim réew. bitim réew moo bitim boole. ay Franc mi. Mbadou Ahmed Kolibi. Ndiago wóor. Ndiago naa parcelle. waa parcelle dañ maa yónni yàqamti ma. doomu parcelle la. fa laa dëkk. kan moo la sa kanam Franc kan moo na Koungheul nañ ñëw ñëpp di ñu waxoon maa ngi sant yàlla nag di rendre grâce à Dieu maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm sant ñëpp merci. combat Modou Lo suba bi combat Modou Lo dangu Farouz doomu dangu doomu dangu Farouz doomu dangu Farouz doomu dangu ngi jéem a jàpp doomu dangu ngi jéem a jàpp Farouz dangu doomu dangu doomu daangu fa ruus ar mu ngi door ci suuf doomu daangoo ngi ah taf ah kaaw na ko ah way doole doxul jàmm. déedéet. doole doxul jàmm. doole rek sama xarit ba doole. doole dox. moom la ko dóor mu toog. jéeg saa daa mën a bëre mais ko dóoree lépp la mënoon a bëre da koy réer. ilaaha illallah doomu dàngu mi daan ko jël bu rëy Tyson 2 ndawul est-ce que ndawul est-ce que xeebul est waaye peut-être mobilité la bëgg arbitre sifflé na ngi ñëw sànni na li fa Tyson 2 defoon Tyson 2 Gora Sock Gora Sock dóor na Tyson 2 jël Gora Sock Tyson 2 Gora Sock Tyson 2 attention Tyson 2 ngir que diisul est-ce que diisul ñaata appui 3 appui 4 appui lamb ji jeex na Tyson daan na ko waaw waaw mobilité mobilité la ko daanee carte d'appui am am na wala amul amul arbitre yi nee nañu arbitre nee na dañuy bëriwaat eh, xee eh. Tyson 2 est-ce que diisul Goro Sock est-ce que diisul arbitre sifflé waat na Goro Sock mbaa dana defati li mu defoon arbitre sifflé waat na Gora Sock day ñëwaati est-ce dana ñëwaati est-ce dana am fit ñëwaati Gora Sock Tyson 2 Gora Sock a xam ne luur la daw nañu jël Gora ñu ngi koy plaqué Gora Sock day na 3 appuis hein 3 appuis Gora dafa war xam ne luur la Gora Sock Gora Sock Tyson ko daw na koo jël Tyson jël na Gora Sock Gora Sock rëpp Tyson 2 ñu ngi ci suuf encore uppercut Tyson 2 ñu ngi xeex Gora Sock Tyson 2 lamb ji tax la suufal tan quoi Tyson 2 jël na ko mu ngi koy plaqué daan na ko Gora Sock daan na Tyson 2 Gora Sock daan na Tyson 2 Gora Sock trois axe Gora Sock daan na kay kay